ndeysaan Bougane Gueye Dany moo ngi moo ngi doog a génn première réaction Bougane Gueye Dany di wax ak waa gëm sa bopp moo ngi nii Bougane Gueye Dany di nuyu gars yi ah ndeysaan Bougane Gueye Dany noonu ndeysaan le président ñu ngi lay siyaar baax waaw monsieur le président ñu ngi lay siyaar monsieur le président ban mbégte nga am waaw waaw. monsieur le président ban mbégte nga am tey. ndeysaan. monsieur le président tey ban mbégte nga am tey. nga ñëw gis ñëpp gars ñëpp prochainement amul benn problème ndeysaan. ndeysaan ndeysaan moo ngi noonu di gis sécurité yi di nuyu am di jàmm yi ndeysaan gars yaa ngi noonu président daa mel ni ko macha allah. Euh, président ngi noonu di nuyu am na jàmm yi. suñu xol mooy noonu am na jàmm yi mooy noonu nuyu am di jàmm yi. président Ngom ndeysaan nee na kontaan na trop macha allah ndeysaan noonu mu nuyu am na jàmm yi ndeysaan Falco ak moo ngi noonu di nuyu am na jàmm yi moo ngi di nuyu waa gëm sa bopp ndeysaan moo ngi noonu wàcc na. mu ngi noonu waaw mu ngi noonu di nuyu di waa Gëm sa bopp sans la presse yi ndeysaan ñoo ngi tàcc ñoo ngi tàcc waaw waaw mu ngi noonu waaw même même ñoom. Thank you.

waaw mu ngi noonu di nuyu nit ñi Bougane Gueye Dany moo ngi nuyu la presse la presse

bukan, a ngi noonu président xam naa bukan, ñu demee ba Koutiel ñu ngi di dem. Bougane daa route vers Dakar inshallah bu gana ngi nonu di waja dem Thank you. Dua saat terang, 77 tey euh, tey ba nga gisee tey macha allah tey monsieur le maire tey loolu tey le président. béeg béeg béeg béeg kontaan rek. tey sax tey tey gis tey. macha allah isaan. isaan. bugaan ku am dëkk mu taxaw ku feebar mu taxaw ku am métier mu taxaw kon président bugaan lii bu dalee Sénégal yëpp dal. isaan moo tax fii fii te ku ñëw tey xale président bugaan. nit ñi dafa ñu ko borom. incha allah bu ko tànn mënuwul dara wax. incha allah xol xol bee rafet. incha allah nit ñu. sànq ñu gis la macha allah nga génn wax ak presse bi nga waxee macha allah ak xol waxee ak bëgg loolu la. waaw li waral loolu mooy dañ gis euh, procureur boo xam ne danoon enquêté à charge te gis nañ ni euh, gendarmerie li ñu def si PV bi. versé ko ci audition ak bi ñu ñëwee li ñu témoigné lépp dañ ko def en décharge c'est-à-dire loolu yëpp dafa dafa dem ci compte président pour Bougane mais nag tuuti toujours est-il que nit boo koy fexeel yàlla suñu borom dogalu sa fexe yooyu ànd ak dogalu borom bi yaakaar naa ne fexe moom mooy neen rek mais dëgg rek moom mooy muy jub mais jàpp nañu suñu justice bi ñuy doxee war nañ ko xoolaat Ousmane Sonko bu fekkee dafa ragal président Bougane la taxaw ni carrément dafa ko ragal mais bàyyi ba nit ñu denc ko mu nekk ci loxo yoon nga taxaw naan dañ ko naan coppet yooyu waxee ragal la mm-hmm. da ngay bàyyi ba mu taxawee jàkkaarloo nga ko dañ la coppet ba day déranger moo tax ah, Bougane day déranger mm-hmm. mm-hmm. ñoom jamono bokk ak ñoom ñoom te ragalu la preuve tey bi ñu ko convoqué dafa dem wuyu ji bi mu demee prison dafa tëdd penam pare woon na bu tëdd lépp loo xam dañ ko doon jox te du ci boolee tappale mais Ousmane Sonko bi ñu ko yóbboo prison bu Sébé Fouta li mu def dafa tappale ne moom da doon crise crise doon feebar feebar du ngeen perfusé wu ko loolu yëpp président Bougane jaaru ci dafa ànd ak dignité dund épreuve bi ak ni nga noonu la ko yàlla tegee kon instant bi yaa ngi fan ah Dakar ngeen jëm ba pare. fi nekk rek am na ah, loo xam moom si en bonne forme sama du ko gisee nii. parce que bi ma bi ah, ah. lu mais également def beaucoup de lecture. parce que loolu dafay bokk ci liy fertiliser escrime daf koy permettre mu noppalu mais également sport bi daf koy permettre bañ a ennuyer wu. te loolu dafa am solo ci koo koo xam ni da ngay envisager ëllëg bu mën a jiite ci réew loolu laa ko dégaloon te jàpp naa ne xëy na mu ngi ci woon ndax boo xoolee lu mu génnee rek dafa génn en forme waaw tey moom kon macha allah kon kon bugaan suñu bee Dakar kon incha allah liggéey bi tàmbaliwaat ah kon du yomb kon incha allah kon en route vers Dakar incha allah jërëjëf jërëjëf merci